di ak gaal moo daal di ak gaal ngeen jokkoo ak sëriñ Mbacké kon yàkkali xabaar bu tiis boobu yi ma nga xewe ca Kédougou ca Bantako ak gaal moo daal di suux jur ñett ñu ñàkk seen bakkan ñoom ñii nag dañoo duggoon ci gaal gi doon wuti bu waa maanaam dénk loolu nag mi ngi amoon dimanche gii ñu génn waaye daal ñoom ba ñu déparé ci xaaju guddi nee ñu ci la nag gaal gi daal di suux jur nag jafe-jafe yàlla sunu borom jot a muccal kenn ki ñoom kookee nag moo ñëw wax ko waa dëkk ba waa dëkk ba yëgal yëgal ko brigade gendarmerie bu Mako ñoom nag ñu daal di jug ca saase taxaw ngir nag fexe daal ba ah, wàllu ñooñi daal di nag ah, suux waaye nag ginnaaw bi ñu daal di koy yëgal itam ñoom élément yi nekk ci ah, sapeur pompier fee ca Kédougou ñu jug nag tàmbali leen a wër ñetti fan ñu di leen wër mujjee leen nag daal di teg gët ñaar ci ñoom altine gi ñu génn. ba jot leen a nag yóbbu ñoom ñaar ñooñi ci morgo bu hôpital bu hôpital régional bu Ahmad Dansokho nekk fële ca Kédougou ñetteelu néew bi nag gis nañu ko talaata démb dañu ko nag sax mujjee suul foofee fa ñu ko gisee ndax kat ab néew moo tàmbali woon daal yàqu yàqu gu jéggi dayoo ki nga xam ne nag moo di rescapé bi moom dafa daal di nag euh, euh, réer ma dëkkeen gisu ko ab enquette nag ubbi nañ ko ci mbir mi ngir nag leeru ko